alhamdulilah rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain mbokk yi dellusiwaat nañ di sant sunu boroom di ko bàkk di ko kañ moom mi nga xam ni mooyee ñu sant ko mooyee ñu jaamu ko ndax defal nañu ci ay xéwal loo xam ni amul kenn koo xam ni mënal nañu lu genn wàllu sax loola sunu xutbay tey mi ngi joy jëm ci àjjana li nga xam ni moom la suñu borom dig ñi ko gëm te ko topp ci kaw suuf ak la fa nekk ci ay xéwal àjjana jooju day mbokk yi ñiy sonn ñëpp moo leen tax di sonn su suñu borom ni woon àjjana amul sawara amul ku man jaamu jaamul ku munul jaamu bàyyil te dara la ci fekk maa ngi yaakaar ni coono bi jullikati guddi yi daj dootuñ ko dajati coono bi jullikati bëccëg yi daj dootuñ ko defati yendoo xiif sa morom yi di doo lekk dootu la ci fekkati weeru lëmb nga toog di ko woor te kenn forcé wu la dootu la ci fekkati waaye jàngum alxuraan mu metti mi la ci fekkati alal ak ni mu taxee ci bakkan nga génne ko di ko joxe ngir du am looy séentu ëllëg dootu la ci fekkati doomu aadama yi li ñuy wuute wuute ay gis-gis li ñuy wuute wuute ay yoon yu ñu jaar ba tax léeg-léeg nit ci fir ak bëgg àjjana dana ko yóbbee mu jaar ci yoon wu bokkut ak wa ko yonent bi jaarloo woon loolu lépp résultat ba lenn la rek mooy bëgg tàbbi àjjana ci jaar lay joor ak ci jaar càmmooñ ak ci ni fii la ci ni du fii fële la ñun ñëpp boo leen dajale woon ni coow li bari bari résultat ba lenn la mooy ku ne àjjana nga bëgg dugg koo ci waxoon ni ko li nga jàpp bàyyi ko waaye boo jaaree fi ñu tàbbi àjjana day bàyyi lam jàppoon parce que loolu la mu wut moo tax àjjana moom la kat léeg-léeg di waxtaanee lenn te xam ngeen ni waxtu day ni waxtu xutba lu gàtt la ci waxtaanee àjjana ci xéewalam waaye tibb ca ay cop rek loolu dana tax ci gëm yàlla ndax al isharatu takfi li man aqal dëgg-dëgg yàlla seede nañu waxtaanee àjjana ku xam li suñu borom jige ci àjjana boo fekkee da ngaa wax ci àjjana da ngay xaw a ni ku gëlëm te loolu mooy li ñu dal ndax ci lan ngay tàmbalee boo bëggee waxtaanee ci àjjana ndax da ngay tàmbalee ca xeeti lal ya xam ni ak gàngu naa yaag toogu ya xam ni doomu aadama mënu koo melal ba daj na mu mel ndax amut lu muy nirool fii ci kaw suuf xam da ngay tàmbalee ca garab yi nga xam ni keppaar ga man ngaa dox téeméeri at toroon nga te du jeex xam da ngay dàmbalee ca fewnde ya nga xam ni ma ngay banglu di génne defi meew ak i sàngara sudul mandil ak lem ak mu sell xam da ngay tàmbalee ca soxla ya nga xam ni jigéen du mel ni ñoom mukk foofu sala suñu xel demee ci waxi imaam ju mag ibn al qayim al jawzi imam jooju nga xam ni téere bi gën a tuuti ci téere yi mu taalif la ca nekk ci njëriñ yàlla rek ko xam dafay melal àjjana mu ni bi nga xamee ni gaa yi yàlla defal tawfiq dëgg xam nañ ni yàlla bind leen ñu wóor leen ni ñoom kat ci jaamu yàlla di nga dugg àjjana te xam nañ ne àjjana mel ku ci mooy yàlla di nga tàbbi sawara te xam nañ ne sawara mel mu ni ñooñu yàlla defal tawfiq ba ñu xalaatee ba xalaatukaay ya jeex seen xel joxu leen lu dul rek ñu yëkkati bopp yi seen ci asamaan sa xool aw yoon wu jub ndeke woowa la yonente bi jaaroon alayhi salaatu wassalaam ñu fas yéene saa teg seen tànk te duñ ko wàcc nag ndax lépp lu leen laaj rek jaral na leen ko parce que àjjanaa ko jar ñu daal gis ni bokk na ci sàggante lool doomu aadama di jël loo xam ne jeex di ko tëkkaleeg lu dul jeex loo xam ni bët mësu koo gis nopp mësu koo dégg xel mësu koo xalaat kenn du ko yemaleeg mukk loo xam ne dafay jeex ak ndaw loo xam ne bu yàggeeg màggat moo ciy topp soo ko doon misaal sax day mel ni gént goo xam ni dafa neex lool borom dem ba ci digg ba yeewu wala mu mel ni rek ay xeeti bànneex yoo xam ne dañ koo koojee ak ay naqar ndax bu la reetaan loo lu baree bari lu tuuti bu la ko reetaan loo xamante ne la jooyloo lu te bu la kontaanloo ay bis dana la jooyloo merloo la ay bis yu bari njaal benn mu ak mujjantal ga yépp di tiitaange la bee ak réccu la mu ni naka ngay gisee waajoo xam ne xam na lii ba nopp nga xam ne dañ koo mu mbubum ko am xel fekk amut xel mu gën a la dundug àddina gii su dundug àllaaxira mu jaay àjjana joo xam ne yaatuwaay ba asamaan la suuf nee na da koy jëndee kër goo xam ni ay birigi ci mool lañ koy tabaxee te lee nga dee basi nga bëgg koo yemaleeg àjjana joo xam ni ay sew nee ngay daw te suufam yaatu lool suñu borom waajal fa ay soxna yoo xam ni nit musul gis jigéen ñu mel noonee kër goo xam ni yàlla dafa waajal yaaquut ak marjaan ak zabarjat ci lépp yaa ko moom loolu kenn du ko yemaleeg jigéen juy gis baax kenn du ko yemaleeg jigéen juy am doom kenn du ko yemaleeg koo xamante ni ab diir dafay màgget daal di faatu dex yoo xam ni sàngara tuddul màndiloo too xam ne du yàq am xel kenn du ko yemaleeg li nga xam ni mooy naani addina yii bànneex bu fel safat xamal ne jàkkaarloo sunu borom a ko dàq ndax kat loola mooy loo xam ne bu ko nit amee dootul amati beneen xéewal boo xam ni ma nga ko féete kaw toog ci kaw ay gàngu ndaay yoo xam ni borom baa ngi ko defaree lu ak yaaquut ak zabarjad ak marjaan jàkkaarloog suñu borom loola kenn du ko yemaleeg toog ci pëjëm jàkkaarloog ay nit yoo xam ne lañuy wax wax yu amul benn solo la te loola bu la bànneexalee fa nga toog it boo fa jógee mu soof mu ni suñu borom di wax ee yéen waa àjjana tey ma garanti ne da ngeen di dund du ngeen faatu mukk tey ma garanti ne da ngeen di bànneexu naqar du ñëw mukk tey ma garanti leen da ngeen di nekk ndaw du ngeen màgget mukk tey ma garanti leen ay wax yoo xam ne moo gën a neex yi ngeen doon dégg ndeke yoo ko kon waa àjjana ñoom daal ña ngay ballaw ci kooku xéewlu ca seen xéewal yi borom ya ña nga toog ca ci ya xam ne suñu borom a ko waajal na xel dana daj laltu yooyu ci luñ ko defaree yenn yi ña ngi ko defaree istabraq yeneen yi defaree ñu defaree ko marjaan di yoo xam ni melal ko doomu aadama yi dafay jafe lool suñu borom yebal ci ñoom ay ndaw yoo xam ni ndaw yu rafet lañ di leen servir la nga xamante ni mooy seeni lekk bi akwaabin wa abaarix ay kopp yu kenn mësul ay kapteer yoo xam ni kenn mësu koo gis wa ka'sin min ma'in kaas yoo xam ne dafay fees dell ak xéewali sunu borom ak yarma laa yusaddauna anha wala yunzifun doomu aadama du fa jàmbat bopp buy mett du fa am lu ko métti sayit wa faakiati mimma yataxayaruun lu nit ci soxla ci xeeti fir ma nga fa wa laxmi tayrin mimma yastagoon yàpp yu gën a nooy ci yàpp yu gën cay baax muy yàpp picc sunu borom ni moom lañ leen di servir foofee ñu nekk ci ay na yoo xam ni ka amtaali lulu il maknuun comme or wala jamaa bu ñu katte jazaam bi ma kaanu yaamaluun sunu borom ni lii laa leen di fayee ndax coono bi ngeen doon daj ci dama jaamu sunu borom ni ñu di leen servir ay palaati or ak te lu seen bakkan ya bëgg kat dañ ko fay am te it nag dañuy sax dàkk ca àjjana ja moo tax borom xam-xam ba ni fa xayya ala jannati adnin fa innaha manaziluna al ula wa fiha al muxayyamu fa xayya ala dawsi leen ala jannati adnin ci àjjanay adan joo xam ni fa innaha moom kat manaziluna al ula mooy sunu kër yu njëkk ya ndax fa la aadama dëkkoon wa fiiha almuxayyamu tànt yu kéemtaane ya fa la nekk mu ni walakinnana sabyu aladuwi fa hal nara naudu ila awtaanina wa naslamu li yàpp mbir mi mooy iblis ma ñu naxoon ba génn suñu baay àjjana mu maa nax duñu naxaat fii ci kaw suuf ba ñun duñu mën a tàbbi àjjana jooja yal na suñu borom boole ñu musal ci loolu ñaari xéewali yi yoo xam ne daañu ko tànn ci xutbay tey bi muy xéewali gën a rëy ca xéewali àjjana ya bés njëkk mooy soxna ya nga xam ni ñoo ne ca àjjana ñaareel bi moom mooy dajeeg sunu boroom xool jëmmam ju tedd ja xam ngeen ne li tax ñu tànn ñaar yii di njëkk mooy doomu aadama yi bari na ñoo xam ni jaamu seen boroom la leen fitnaal mooy jigéen ak fitnaam ndax yonente bi nee na sallallahu alayhi wa sallam bàyyiwuma ci kaw suuf fitna ju a rëy ci xeet bi fitna jigéen ki nga xam ni gis na lu ko fël bëtam ci kaw te mu nar koo jaare ci mooy yàlla jamono jooju na xalaat ni sunu borom mu am na soxna yu ma waajal ca àjjana yoo xam ni wa xuurun ayin ay jigéen lañu yu dijji ay bët seen bët yi dafa fees dell la cay weex dafa mel na mu war a mel la cay ñuul ka daalik sunu ka amsaali lulu il maknun boo jëloon jamaa nga seet darat jamaa nga seet emballage bi gën a rafet ci àddina nga embalee ko ko ci vitrine ni ñi di ko seetaan sunu borom mu ne bëti soxna yooye moo leen gën a rafet sunu borom mu ne inna ansha'naahunna insha'a fa ja'alnaahunna abkaara ay soxna lañ yoo xam ne yàlla muy dama leen a waajal allahu akbar lan nga xalaat ci ñoo xam ne sunu borom a leen defaral boppam bu doon ab liggéey la te suñu loxol borom lu seddal lañ ko inna ansha'naahunna insha'a ñun yàlla ñoo leen waajal ak waajal goo xam fa ja'alnaahunna abkaaran jigéen ju mën a xam góor amu fa déedéet waaye jigéen joo ca gis rek jigéen ju ndawe la joo xam ni musul xam góor wa taala mu ne xóorum maqsuratun fi lxiyaam ay jigéen lañ yoo xam ni seen tànk dafa gàtt ba xëy ma yéen leen teg ñoom duñ ko sax génn ndax amuñ yitte feneen fiihinna xayratun xitaan mooy rafet ba yegg ci jigéenu àjjana ngay dëkku ko romb sunu borom mu ay jigéen yu gàtt ay bët lañ ñoom xooluñu lu góor jàmbur am xooluñu lu keneen am waaye góor gëleen suñu borom dénk la mu am rek la ñu gis te melokaan yooyu moo gën a baax ci melokaani jigéen ñi àjjana yi moo tax imaam ju mag Abdul Wahid ibn Zayd al Basri dafa yéeg ca kaw min barab Dimask wala Kuufa di xutba di waar nit ñi di leen fàttali ba mu leen di ba mu yàgg ci wàllu jihaad mu tàmbali di melal melokaanu àjjana ya bokk na ca lam doon wax muy tawallada nuuru nuuri min nuuri wajhiha fa maazaja tiiba tiibi min xaaliq al itri jigéen nañ yoo xam ni dafa mel ni daal lumière fu mu gën a leeree booy laaj fu ñu ko jëlee dañuy wax ni ci kanamu xar kanamu ndaw si lañ ko jëlee bi maanaam projecteur li mën a leeral lu ko raw kanamu xar kanami jigéeni àjjana yi mën na ko leeral bal sax nag gëtt gi gën a neex ko andi woon nga boole koog moromam gëtt gu gën a neex ci àddina muy ñaar yu daje xanaa ñaar yooyu war naa mën a génne kat gëtt gu gën a neex ci àddina mu ni loola lay gëlluloo di génnee ca ndaw sa moo ko dàq mu ni soxna yooyee day falaw watiat bin naali minha ala alxasa bu kenn dem ba ca ba mu fekk ñax yu waw ya mu jël tànkam bi joggi ko ci genn ñax gu waw rek bi yëpp da koy soppeek la ku nekk ab nawet daal di verte ñoom na tëx ndax barkeel boo xam ne sunu borom def na ko ca ñoom la asabatil aqtaaru addina bi yëpp koy soppaliku neex min gayri ma matrin te jarul taw di wàcc ñoom kat seen seen melokaan ya law tafalat fil baxri shahda su jigéen te dajale woon ay taflit ci gémmiñ gi ba gémmiñ gi feese ki taflit mu ni ko bàcc tafli a ca biir géej ga la qaaba li ahli lbarri surbun min albahri kon su boobaa kat mën nañoo fat teen yi su boobaa mën nañoo tëj robinet yi ndax su boobaa ndoxum géej mi a kat soxna yi àjjana ya kenn bu ca tafli woon tafli doo day soppi ndoxum géej yépp mu nekk suukar su boobaa nit ñi mën nañu dem di fa naari te loola génn jigéen rek moo koy def ci jigéeni àjjana yi moo tax alimamu tabaraani mi ngi soloo ci almu'jam al kabir mu ni àjjana kat yàlla dana fa tàbbal benn jaam jaam bi dafay dugg ci biir àjjana ñu ni ko wammat mu jëm këram nee na bu yegsee suñu borom day yebal mbindaanam yaag surga yaag ñëw di ko teertu si na am na ku leen jiitu koo xam ni kéemtaanu suñu borom la ci rafet boo ko xoolee yow da nga yaakaar ni suñu borom mosul bind melokaan wu ci rafetaay su ko defee waa ji nga xam ni moo war a dugg àjjana moom bu séenee loolee day jàpp ni kooku mooy yàlla subhanahu wa taala ndax rafetaay ba ndax moom daf doon dégg suñu borom ak nam mel nga xam ni gis ko rek bala bànneex yam bu séenee lu rafet loolu danaa man daal lii ma séen te nekk lu dul yàlla mu gaaw waaxu ay jéego dem ba ca doon xaramtee tànkam daal di koy sujootal bi mu ko sujootalee e laaj ko waa yow looy sujoot mu ne sama borom mii ma séen muy ñëw moom laay sujootal yonente yàlla bi nee na ñu ne ko déedéet siggil kii du sa borom du sa soxna waaye kii mbindaan la ci sa mbindaani biir kër billahi aleykum mbokk yi ku gis sa mbindaan ci sa mbindaani kër yi nga di ko sujootal nag jaawale ko yàlla kooku boo gisee sa soxna nooy def kooku jur sax ñu naa kon boo gisee yàlla nooy def subhanahu wa taala imam ibnul qayim mu ni boo laajee kat seetu ya nga xam ni wala seet ya nga xam ni sunu borom da koo waajal sa biir àjjana ja ay jigéen lañ yoo xam ni màggatun ay jigéen lañ yu ndaw yoo xam ni seeni ween sax sëggut ay jigéen lañ yoo xam ni mësuñoo xam góor ay jigéen lañ yoo xam ni kenn mës ka wax ak ñoom waxi caaxaan ay jigéen lañ yoo xam ni melokaan waleen yàlla waajalee seeni borom kër noonu la leen di fekkee ñoom sax seen xar kanam yi suñ la ko noon melal dañuy wax dafa mel daal jant bi ñëw ba ci seen xar kanam rek sàpp ci di wëndeelu nee na ñoom kat saa bu ci benn jigéen ne ba xëy ñett nee na fa mu feeñ dafay mel ni rek waa ji nekk ci nawet mu lëndëm mu jékki-jékki rek melxati ni say leeral addina bi muy melxat gi ni muy leeralee addina bi yëpp jigéen du génn te jigéeni àjjana ya ba nga gis ko noonu lay mel mu ne lan nga xalaat kon kii bu ko yàlla wërsëgalee borom këram ki doon jaamu yàlla di jug guddi di woor bëccëg bàyyi lu bon lekk lekkatul riba lekkatul alal jirim fenatug rambaajatul jaxaseetug ay nit ma ngay jàng alquran ma ngay woor ndul weeru koor ma ngay génn ci àllam di joxe moo leen sopp yàlla yi ma ngi koy def ibn al qayyim mu ne kii bu ko yàlla yëtee soxna si ñoom ñaar bu ñu jàkkaarloo lan nga xalaat mu ne xanaa yaakaar ni rek jant baag weeroo ñoom ñaar ñooy jàkkaarloo kii yorub rataaram kii yorub taaram kii yor leeram kii yorub leeram kii yorub rafetam ñoom ñaar ñu daal di daje mu ne lan xalaat ci ñoom ñaar bu ñu songantee kenn ku ci nekk ci morom ma di ko ndax mbégte mu mu am ci fii kat la ko yàlla waajalal subhaanahu wa taala mu ni su boobaa dal jàppal ni lépp loo xam ni war naa daje ci ban ñi ñi amee bànneex rek mu ni yëgal ni keroog dana daje ci ñoom ñaar ñëpp lan nga xam ci jigéen joo xam ni day sol ba noppi mën naa solub jëpp sol mbubb sol yi ba mu yeggal te bu soloo ba noppi bu la wanee kanam mbaam wan la gannaaw leeraayu yaram wi sa bët dana bët ci ba ngay seen yaq ya nga xamante ni moo nekk ci biir yaramam te loolu li ko waral mooy leeraay bi ko sunu borom defal subhanahu wa taala ay soxna lañ yoo xam ni kenn ku ci yërlu woon ci kaw suuf sa bopp bu feeñee rek même bu sëriñ ñëwul sa bopp bu feeñee rek leeru jant bi day fay parce que leeru jant bi kat li muy leer leer ak li muy am doole jant beeg ni muy weer wi li muy am doole jigéen ñi àjjana yi seen leer gaa gën a foor allahu akbar suñu yërndu woon seen ci kaw suuf bu dee la leer weer wi dafay fay waaye bu dee bëccëg leeru jant bi dafay fay xëy sax nag du yem ca loola waaye la malaat ma bayna alsamaai wal ard riixa doomu aadama yi saxaar seeg woto yeeg terrain yeeg footi ñii nga teg naqar yi ñuy génn ci jaww ji su boobaa xet boobu dafay jugi am geneen xet gu gu fiy ba doomu aadama yëpp dañuy jaaxle waaw dëkk bi fu mu jugee nekkate benn jigéen ci jigéenu àjjana ji kat moo yor du boppam rek moo feeñ moo indiwaale gëpp gi ci àddina bi yëpp tey sab du yem ca loola kat nag la malaat afwaaha al xalaaiqi tahlilan wa tasbiha jigéeni àjjana yi bu ñërnu woon fii ci kaw suuf jaamukat yi yàlla yëpp buñ leen séenee bu ñuy kàbbaar yàlla duñu xam sax luñ ko wax loo bu ñuy kàbbaar duñu xam sax luñ ko wax loo waaye bu ñuy sant yàlla duñu man da ngay jékki-jékki yëg ne salaam daa wax tey contrôlé te woo ko kat ay jigéen lañ yoo xam ni suñu borom mi ngi leen di waajalal waajal goo xam ni bal sax nag yaakaar mooy bu ñu yërndu woon fii fekk nu te ñu melokaan yii ñu mel moom dee sax la ñuy def ndax booba bànneex doomu aadama mënu koo dégg sobal na xeeti naqar yoo xam ni tamit it mënu koo dégg jigéen lañ yoo xam ni asaraat yi ñuy takk ca seen bopp ya nga xam ni boo demee ci marché ba ci gën a teer day jar trois cent mbaa téeméer yonent yàlla bi nee na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam musuwaar wala atraab yi ñu takk ci seen bopp ya buñ ko dikkoon ci marché bi weccee ko ko mu nekk monnaie mu ne lu nekk ci àddina bi ci matériel xaalis mën na koo jënd ndax cher ga muy cher yonent mu ne sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñoom kat lu at yi gën a bari suñuy jigéen lu at yi gën a bari ñuy gën a jëm màgget ak ñàkk rafet ñoom nag lu at yi gën a bari day mel ne suñu borom daf leen di gën a yokk taar subhanahu wa taala lan nga xam ci jigéen joo xam ne du tofli du gis baax biiram du metti du feebar du sonn du jàmbat mboolem luy xeeti sikki jigéen ñi àddina rek moom amu ca benn ndax borom baa ko waajale noonu subhaanahu wa moom kat amul aaja feneen lu dul góor ko yàlla jox xool nga ko mooy lu nekkoon ci su naqar dafay daal di dañ jigéen joo xam ni borom bi daf koo waajal subhaanahu wa ba mu mel melokaan woo xam ni comme rek ab caq boo xam ni dañ ko rafee ay per bii di lublu bii di zabarjat bii di yaaquut bii di or moo mu xeeti takkaay yu rafet yi nga xam nit ñaa ngi koy takk sunu borom defaree ko ab saq na muy rafetee noonu la jigéen ñi àjjana yi mel si ko ko sunu borom daal di jégg jigéen lañ joo xam ni kenn ku ca reetaan dafay mel ni ak mel xati goo sànni ci kaw suuf waaye nag kéemtaanu sunu borom nga mooy bu nu génnoon tey seen kër tey bu ñu tuddee woon lampi àddina bi jigéen àjjana génn ci pale bii di jëm ca beneen pale mu ni jërëjëf ñuy taal ay lamp ndax leer gi ko yàlla jox mooy leeral fi muy jaar fépp kon mbokk yi jigéen ju mel nii day maa ngi yaakaar ni ku ko dégg waratoo am jàmm lu dul da nga saa wut wallahi Abdul Wahid bi mu taxawee ca kaw min bar mu jàng lii ba noppi benn jigéen dafa jóg ca waa Basra ndaw daal di jóg daal ni ko waaw jigéen ñu mel noonu ku ca bëgg nooy def moom jigéen na kat ndaw si jigéen la te mu ko jigéen ñi mel ni ku ci bëgg nooy def mu tàmbaliwaat di wax ay wax yu bari te nan ngay def ay jaamu yàlla ba am ko mu daal di génn dem ci këram fekk fa doom ji góor joo xam ni baayu xale bi faatu na magi xale bi faatu na moom rek la dese te xale bi kat xale bu góor a dëgg fenn mu daal di koy yabal ni ko yow matagoo dem jihaad waaye demal jihaad na amaan na boo fa dee xëy na àjjana jigéen wut di nga ko di nga am ci jigéen ñi waaye mayit ma amaane ci biir yoon yabal xale bi xale bi dem. ndaw si toog tuuti mënatu koo muñ ñoom dañoo guddoon kawar seen kawar mën naa wàcc sax ba ci seen tànk mu daal di dugg ci biir néegam daal di jémp kawar gi bi mu jémpee kawar gi mu daal di koy létt bi mu ko léttee ay létt létt boo xam ne comme buum la ko def bi mu ko defee buum mu dugal ko ci ko dugalee ci kees daal di mu dem kër imaam bi kër Abdul Waaxid daal di koy fëgg Abdul Waaxid ni moo ci am man gan laa ci dëkk bi kat kan moo ma xam ba dina fëgg mu daal di ubbi nee na maa ngi gis jigéen joo xam ne mi ngi muur kanam gi ma ci suuf xaw ma ko lu mu mel moom daal jigéen la daal mu daal di yëkkati kees gi ni ma jàpp ni ma jox ma ni ma demal boo demee bu ko defee man ma anta amala siyaaba Abdul Wahid nee na bi ma ko ubbee ma fekk mu def ci kawar jim jël daal di koy raaf ba mel ni góom mu ngi ni sa benn leetar mu ni sa ngalaabu fas bi laa bëgg nga tekki ko bàyyi fi sama kawar gi nga jël ko nga ngalaabee ko def ko buumu fas wi ko defee boo jihaatee ba am àjjana ma it ma am ca àjjana xool ñooñu mbokk yi àjjana ñu leen jaraloon nit day def jëf joo xamante ni du waaye jamono jooju nit fa mu toll fa mu toll rek fa lay waxee waaye fa mu toll tamit nag fa lay defee ndax kooku àjjana ci boppam yóbbu na am xelam ba xamatut lu mu war a def kon jigéen yooyu ñooy jigéen ñi àjjana yee ñooy ña suñu borom waajal yàlla na suñu borom boole ñu ñooy may ci soxna yooyee ñaareel bi ci xéewalu yi mooy ci ko naa leen bi li waral ci lu ëpp ni ñuy séttërlu ak ñuy daanu ci yoon wi lu ñu yegg fan jëm mooy jigéen ñi àddina yi ndax yent bi la bàyyi mu fitna ju gën a rëy fitna yi jigéen ci kaw suuf kon kat su boobaa ci nit ñi kat dana nit ñi lépp loo xam ne mënu ma ko amee ci lu dagan naa ko mun ba àgg fële ndax loola kat du jeex te lii moom dafay daal di jeex ñaaral tomb mooy laddatu la ila wajhi rabbina al ibad rabbil ibad laddatu nadari ila wajhi rabbil ibad allahu rabbul alamin mooy xool yàlla subhanahu wa taala mbokk yi xam ngeen ni azamu labdatin fi fi fi l axira azamu labdatin li ahli l janna ruyatu llahi rabbil alamin àjjana ba àjjana daj lu mu la fa mën a wax nag gis yàlla moo ko dàq ndax noonu la ko yonente bi waxee alayhi salatu wasalaam xam ngeen ni moos àjjana suñu borom dugal xéewal gëpp a gën a rëy def ko mu nekk gis ko ba pare mu koy yombalaat fii ci àddina bu déedéet loolu mënul nekk mais da nga dégg ñuy wax dañuy gis yàlla loolu juumte bu mag la loolu loolu daanaka ki koy wax daa ànd ko xelam waaye gis yàlla ci àddina mënta am ci àddina pare wëlbatiku nar a nekkaat la gën a neex ca àjjana kon feqaalatal yàlla di ko def loolu parce que su ko defee rek kon wax ji fetteeku na bal kay da koy def li gën a neex loo xam ne doomu aadama bu ko diisee dootul amati maîtrise day gaaw wuti ko waaye loo xam ne ku ko bëggoon tey ñu tàggat la nga ko ah wax dëgg yàlla kon jërëjëf di sonn di ko wuti moo tax am na ay tanaaqubaat mooy di wax tey li ngay waxee yaa ngi yegg di sax waxe yàlla ak waxe yonent doo ko yëg loolu day faral dal nit ñi waaye a'zamu na'imin fil janna ru'yatullahi rabbil ibad sunu borom mu ni lilladina ahsanu alxusna wa ziyada ñi doon rafetal yàlla mu ni dinaa leen fay ak rafetal bañ xam ne yàlla lañ doon jëflanteel buñ ñee kontaan nañ ma ni wa ziyada ma dolli leen wujuhun yawma idin naadira ila rabbiha naadira suñu borom mu ne am na xar kanam yoo xam ne yow doo ñëme ñu ci dikkal di leen xool kanam yaa ngay lerxatee ka fekkati ànd ak ay xeeti taar yoo xam ne yàlla rek xam na mu toll nga ni waaw kii ma ne kat ñu ni kii daa gis yàlla moo tax mu mel nii mu mel maanaam yàlla boo ko gisee da nga del toppee ku mel neneen yonent bi alayhi salaatu wasalaam ci xadisu abi hurayra mu ne anna naasan qaalu ya rasulullah hal nara rabbana yawma alqiyama ay nit dañoo ñëw ci yonent bi ni ko waaw ah, yonent bi àllaaxira dinañ gis yàlla mu ni fa hal tudaaruuna fi ru'yatil xamari laylatal badri mu yéen bu weer wi feeñee ba am fukki fan ak juróom est ce que am na ay puusal ma xool weer yaa ngi may làq ñu ne déedéet parce que ngandaay bàyyi tax jorut loolu ku xool gis mu ni hal tudaaruuna fi ru'yati shamsi laysa duunaha xijaab bu ñu tollee ci dugg bëccëg ay deux heures jant bi mel nam mel est ce que am na yaa ngi may làq puusal ma xool jant bi saxaaba yi ni ko déedéet ndax day fekk ma ngay dàng dàngaaral mu ne innakum tarawnahu kadalik gis ngeen ñi ngeen di gisee weer wi ci fukki fan ak juróom ñi ngeen di gisee jant bi ci waxtu digg bëccëg digg njolloor mu ne noonu ngeen di gisee yàlla amul puusal ma xool beneen riwaaya mu ni laa tudarruuna fi ru'yati amul lorante yaa ma làq yaa ma dëgg déedéet soo taxaw seen ko beneen bi mu ne laa tudaamuuna bi ru'yati amul buuxanteeg tàncaloo tuutal ma xool toppal déedéet coono bi ci am foo bëgg a taxaw taxawal waaye da ngay seen borom bi subhaanahu wa taala yal na yàlla boole ci ñooñee nga xam dañ koy gis bis boobu de mbokk yi mooy yawmul majiid mooy yawmu ziyaarati al aziz al hamid wa ru'yati wajhihi al munazzahi an at-tamthili wa at-tashbihi wa at-takyifi wa at-ta'til keroog de mooy bisab ziyaara ma kan la ñuy ziyaare sunu borom ma nga xam ni dafa sori lool melokaan wi ñu koy jox du ko dafa sori lool ñi ko koy nuraleel du ko dafa sori lool ñi am amul taxankay am na waaye dafa sori lool ñi nga xam ne ñoo am kenn kuñ koy nuraleel ndax nuróowut ak kenn moom suñu borom àjjana kat bu fa nit ña duggee suñu borom day yebal ab wootekat mu ne inna rabbakum tabaraka wa taala yastazidukum ee yéen waa àjjana ñu ne naam allahu akbar yal si ñooñu wallahi mbokk yi mbooloo mii ak lu waay mën a am ci kaw suuf boo ko tardee xalku nga junne yoon ndax doomu aadama amul àllaaxira xéewal bu gën mu bokk te mbooloo mii yàlla suñu borom boole ñu si ñun borom nee na kaay leen daf leen bëgg a dolli ñu ah, waaw suñu borom moom am na lu muy dollee nga xam ne kuy wax moom fa mu toll rek lay waxee borom daa am lu muy dollee moom kat leeral na suñu xar kanam yi moom kat jox nañu suñu dëkkuwaay ci moom kat ñun lu mu xalaatul sax fekk nañ ko fi kon lan moo war a def ndeke booba fàtte nañ gis gi ñuy gis yàlla subhanahu wa taala ñoom ñëpp rek ñu daal di jóg jëm ca suñu borom ñu lal lal fii fee nekk ay fauteuil fii nekk ay moquette allahu akbar ibn al qayim mu ne ñi gën a kawe ay piliyaan lañ leen tegal yoo xam ne or ak yaaquut ak zabarjat lañ ko defaree mu ne ñu gën a tuutile te it tegam am na ñu gën a tuutile mu ne tegam am na ñu gën a tuutile moket ya ñuy toog la yoo doon yoo xam ni lal li gën a nooy ci àddina moket yooyaa ko gën a nooy dañ saa bés wiccal wicc wiccal te parfum ba nga xamante ni doomu aadama ji bu ca toogee day mel ni ko toog ci gazon yooyu ay ñax yoo xam ni ñax li xeeti bànneex la sunu borom subhanahu wa taala waajal leen ko foofu sunu borom dig nañu sampal ko kursi yi borom bi subhanahu wa taala nag doomu aadama yi toog fanu toog sunu borom ba léegi rek mi ngi teg kiiraay bi ci digganteem ak jaam ñi kenn gisu ko daal di woowaa àjjana ne yee yéen inna lakum inda allahi mawidan yuridu an yunjizakumuhu seen borom nee na dafa am lu leen digoon lu mu leen bëgg a defal ñu ne lu muy dolleeti lan la war a dolleeti li ma lim la nga ci ay xéewal sunu borom daal di leen subhaanahu wa taala man kat maa ñëw pour ganesi leen daal leen di nuyu allahu akbar mu ne assalaamu aleykum ya ahlal janna gis nga nuyoo booba kenn du ko fayee wa aleykum salaam déedéet dañ naan ko allahumma anta salaam wa minka salaam tabaarakta yaa zal jalaali wal ikram lii fayum nuyoo foofu rek la am beneen amul fay fu ñu koy fayantee ci kaw suuf faajina noonu la ñuy fayee sunu borom subhanahu wa taala loolu sunu borom daal di wax ak waa àjjana ne leen ah man kat damaa bëgg ngeen gis sama dund ci allahu akbar noonu rek sunu borom daal di xeet ci dindi kiiraay gi doxoon ñi gën ci ak nit ñi fa yatajalla lahum almaliku yadhaku ilayhim li awali marra doomu aadama yi di gis yàlla dañ koy gis mi ngi reetaan moom sunu borom subhanahu wa taala allahu akbar nag kenn ku daje woon ak benn jigéen ci jigéen ñi àjjana yi gis ko muy reetaan di nga maîtrise tey sa bopp déedéet moo tax bu fekkoonte ne du woon sunu borom dafa soppiwaat bind yi mu mel neneen bind jëmm yi mel neneen su boobaa doomu aadama yi dañuy lakk lépp ab xadiisam ci saxi muslim yonent yàlla bi ne ne xijaabuhu nuur kiiraay gi dox suñu diggante ak yàlla ba mënuñu koo gis ak leer la mu ne yàlla bu dindi woon kiiraay gi waxuma la lu mu fekk ci kaw suuf day lakk allahu akbar leer boobu kaw suuf dara du ko mën a dégg lépp koy lakk moo tax ma ne la kon foofa ci àjjana bu dul wërëb suñu borom dafa bindaat nit ñi mooñaat leen geneen mooñ su boobaa dañuy lakk foofu yëpp waaye loolu du am ndax àjjana lu naqari amu fa suñu borom subhanahu wa taala kenn ku ci nekk nag daa bennoog yow dafa benn petoog yow yonent bi nee na dana fay toog kenn sax ba ne ko yow xanaa yaa ngi fàttaliku la nga defoon mu naa waaw waaw sunu borom di ko limal di ko limal di ko limal ba mu yàgg mu ne waa ji waa ji mu ne sunu borom waaw yow xanaa baaloo di ma limal lii sunu borom mu ne ko ma la baalu woon du ma la tàbbal aljanna allahu akbar ndax sunu borom da nga maa baalu bàkkaar yi ngay limal mu ne ahan kay baal laa tax ma di ko limaat yi ndax su ma woon du ma la tàbbal yàlla bi nee na alayhi salatu wasalaam foofu nag doomu aadama yi nag kenn ku ca nekk nag am ci xéewal gi nga xamante ni mooy xéewalu àjjana ga gën a rëy mooy gis yàlla subhaanahu wa taala moo tax benn borom xam-xam mu ni fa baynahum fi ayshihim wa sururihim wa arzaquhum tajri alayhim wa tuqsamu ida hum bi nuurin saatiin asraqat lahu bi aqtaariha aljannat la yutawahhamu muy doomu aadama bi ñu nekkee ca bànneex yaa xéewlu yaa ajjana jaag tewle yaag soxna yaag jigéen ñaag doom yaag or maag lépp mu ni waar zaaquhum tajri alayhim wa tuqsamu ñi ngeen ko bëggee rek suñu borom préparé na ko ñu koy séddale ñu ne idaagum bi nuurin satiin ñu jékki-jékki leer bu nit kay asraqat lahu daal di leeral fépp bi aqtaariha aljannaatu ajjana jëpp la leer gi leeral dafa mel ni daal leer googu dafa ñëw fay sunu lamp yi mi ngi mel ni ku tiim benn projecteur taal ko ci kaw sondeel su boobaa leeru sandal ga dootul feeñat muy tajalla lakum rabbu samawati jahratan fa yadhaku fawqa al arshi thumma yukallimu mu ne sunu borom feeñ génnee ni pëllee teg aas jahratan nit ñi di ko gis amul ndax li may foog moom laam deet jahratan da ngay koy seen nga xam ne kii mooy sunu borom mu ne fa yadhaku fawqa al arshi sunu borom di reetaan ca kaw ars thumma yukallimu doog a wax ak doomu aadama yi la muy wax ak ñoom naan leen salaamun alaykum yasmahuuna jamiuhum bi aadaanihim taslimahu id yusallimu sunu borom naan leen salaamun alaykum jàmm yàlla nekk ci yéen mu ne yasmahuuna jamiuhum ñëpp ay dégg amul ku naan ki doon wax ku doon ak lu mu wax déedéet mu ne bi aadaanihim ci say nopp ngay déggee du sam xel de taslimahu id yusallimu jamono ba muy no no wuy woote tamit sa ngay dégg woote ga wuy yaqulu saluni ma stahaytum fa kullu ma turiduuna indi innani ana arhamu allahu akbar sunu waa mu ne ee eh, jaam yi laaj leen ma kenn ku nekk na wax li mu bëgg la hawla wala quwwata illa billah fa lan nga bëgg xalaatal ba ku sa gan yam nga wax lan nga bëgg nga wax ko yàlla bul bul yëpp déedéet bul yërëm lu tax bul yërëm mu ni fa kullu ma tasaluunahu lu ngeen di laaj lu ne lépp lu ngeen di laaj allahu akbar fa kullu ma turiduuna indi innani ana arham bul yéeg tey bu la nit nee ñaan ma nga ne xëy na bu ma ko ñaanee fukki junni day day diis ci moom xaar ma ñaan ko ñaari junni suñu borom ni déedéet loolu du seen borom ñaanal nga ne li ma xalaat day mu ni waxal ndax li ngay wax lépp mën naa ko am xëy ana arhamu yërëm leen moo tax ma dugal leen fii ci ajana ji fa qaalu jamian nahnu nasaluka arrida fa anta alladi tuuli aljamila wa tarhamu dafa mel ni ñoom ñëpp dañ ñu ne déyandoo li ñu war a wax ñu ne yàlla ñun soxlaatul dara ndax bu dee or jox nañu ko bu dee jamaa jox nañu ko bu dee kër rafet na lool bu dee soxna mat na sëkk kon kay li mu bëgg mooy arriba kontaanal ci ñun rek ndax yow kat li gën a baax ak li gën a rafet fa yow rek la nekk moo tax fa yaa baa'ian hada bi baxtin muajjalin ka annaka la tadri bala sawfa taalamu xoolal ñii ku ko dégg ba nag wëlbati ko génn rek fetteer lu continué ca la mu nekkoon jaay àllaaxira ak àjjana jooja di ko jëndee àddina bu ñàkk solo bi mu ni ko annaka laa tadri yow da nga mel ni da nga amul am xel fa in kunta laa tadri su fekkee da nga amul woon am xel fa tilka musibatun xamal ni tàbbi nga ci gaal ak musiba wa in kunta tadri su doon xamoon nga ko waaye boo dóorloo doo fal musibatu azamu musiba ji tàbbi ci sa kaw moo gën a rëy allahumma inna nasaluka alfirdawsa al aala allahumma inna nasaluka alfirdawsa al aala اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم إن عذابها كان غراما اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من من شرك والنار اللهم إنا نعوذ بك من سخطك والنار نسألك الهدى والتقى والعفف والغنى نعوذ بك من الهم والغم والعجز والكسل اللهم أدخلنا الجنة دار الأبرار مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين